asalaamaaleykum mbokki internet DK TV people ak Medina ñu ngi toog ak alxaaji Mbay Meng Jóob kon ñu ngi koy laaj rek Mbay ban yëg-yëg nga am tey ndax euh, suñu rakk suñu xarit suñu président suñu lépp bu yàlla defee mu juddoo fi yaroo fi màgge fi am lu yàlla def ci moom ba mu koy delloo ci koñ bi ndax diine ci diine mënuñu lu dul sant ko yàlla parce que li indi El Hadj Diouf mi mu toog fii du caaxaan li indi Soumadou Fall mi mu toog fii du caaxaan Amadou Diop Boy Bandi Male du caaxaan Samba Korme du caaxaan Amadou Ndiaye Zamadou Cawakaam du caaxaan Aliou Ndiaye Male du caaxaan ñëpp a ngi fii nga xam ni ñoo ñooma seqoon ay terrain football di ci daaw ak di waaye bu yàlla defee tey mën nañu wax sax reconversion di am dañuy sant yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko di ñaan yàlla ñun ñu coow ñëpp yàlla guddal suñu fan suturaal ñu. El Hadj Diouf fa tabarakallahu di ko laaj ban yëg-yëg la am bu gisee kenn koo xam ne ñoom ñaar ñoom bokk association di ay anciens footballeurs te Cheikh am ci taxawaay bu rëy mu ñëw fii mu juddoo fii mu dëkk def lu mel nii ànd ak ay doomi jullit yu bari ban yëg-yëg la ci am El Hadj. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa sa sant. di rafetlu li nga xam ne moom la le président Cheikh Seck lu tax ma koy woowee président Cheikh sec parce que mooy président amicalu internationaux yi nekk Sénégal ñëpp képp ku ma sol mayo équipe nationale yàlla def ma nekk premier vice président at membre yi fi nekk yëpp at sunu grand yi fi nekk yëpp at sunu stage yi fi nekk lii nag duñu gólet si Cheikh ndax Cheikh bu loxoom demul si jàkka ji tamit loxoom dem na tamit si église bi ma ngi leen di jàppale tamit ma ngi jàppale social bi fépp ndax li mooy Sénégal ndax man xam naa ko bu baax a baax euh, sama grand la suma xarit la euh, xamante na bu baax ñoo bokk association bi ñoo bokk équipe nationale donc Cheikh dafa yàgg si social ma ngi si jàkka ji ma ngi ci fépp je crois que ñun xale yu mel ne ñun inspiration la pour ñun bu ñu demee ba san di organiser yenn Euh, euh, Saint-Louis di dimbali hôpitaux yi nekk foofu di dimbali nit ñi c'est parce que su mel ne ñu mel ne Cheikh Seck la nga ko jàpp euh, jàngee di wax rek lii nag mu def lu mag la mais li mu def nii du rek nan ko def inauguré ka mu jeex léegi am na lu gën am solo moo di nii mu sete tey suba bu ñu dellu see wala dans dix ans mu gën setaate nii na nit ñi ku nekk jël ko def ko comme sa mbirum bopp bu leen Cheikh gën goree tey jii fii bu ñu fiy dellu si waat tabaski wala korité wala beneen ak beneen dafa war a gën set nit ñi képp ku gis xob jël yóbbu comme naa jël exemple si chinois yi si japonais yi si asiatiques yi bu ñuy seetaan football bu ñu paree dañuy indaale seen buus lépp lu waay jëfandikoo lu nga xam ne tey jii dafa war a dafa war a yàq tey jii waral setal euh, kër gi ku nekk def ko si këru bopp loolu moo gën am solo mooy entretien bi defar gaaw na trop. mettre entretenir moo gën a yàgg kon nag entretien bi nekk ku nekk jël comme ça affaire bopp ba pare def ni néegu yàlla la entretien bi na gën rafet. et di remercier encore Cheikh Seck di remercier encore la président naan ko gàcce ngalaama et bu mu gën goro nit ñi merci beaucoup. contenté ñëw fii fekk si suñu mag suñu président. suñuy euh, suñu ay grand ñoom Mbaye Mbeng ñoom Samba Koor ñoom Amadou Diop Boy Bandi lii nag xol day seddati ñoo xol seddati na parce que euh, tey ku nga xam ne su ñun la bokk euh, ñu solondoo maaya équipe nationale bi parce que man bi may football équipe nationale Cheikh ma doon suñu gawul mais man ma gën fa nekk xale ma ñëw suma papa denk ma ko donc jamono doxee ba tey ji ñu ñëw fii ñuy inauguré néegu yàlla bi nga xam ne vraiment su ko gisee fa tabarakalla rafet na macha allah ñun dañuy am content mais dañuy am fierté aussi. ki nga xam ne ku nekk su ñun. parce que koo xam ne yàlla suturaal na ko mais bu ko neexoon aussi. mu jël ni mu am toog ci. mais moom mu ngi koy bokk ak jaam yi. mu ngi koy bokk ak ay mbokkam. parce que ñu ngi olof dina ne buñ ne nit baax na. dañu naan da ngeen mbokk yi ñoo ko wax. donc Cheikh Seck baaxaayam ay mbokkam ñoo ko jëkk a yëg. mënuñu nag du dul di ko ñaanal. yàlla may ko fan wu gudd. yokk ko wér gu yaram sàmm ko sàmm njabootam. Baye Samba koor lan nga yëg. am si kontante Cheikh def lu rafet loo xam ne yàgg na ko def te mu ngi kon di ko def li ñu koy ñaanal rek mooy yàlla nekk fenn guddi gu wér parce que ku def si kër kër diine def nga lépp te c'est la première fois Cheikh jàkk yi bari mu ngi si taxaw di def lu baax li ko yàlla jox nag mu ngi koy bokk nit ñi yàlla ko yàlla may fànn guddi gu wér loolu laa mosul ma si wax. def teraanga bu toll nii defal ko diine waaye képp ku mu xam rek defal na la ko ndax am na loo xam ne bu ko sa xarit defee wala sa mbokk def ko rek daf lay yóbbaale. waaw d'abord euh, di sant yàlla. di wax alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin euh, damay foog ni nit ñi dañuy fàtte ni euh, yàlla noppi na. Mm-hmm. yàlla noppi na te yàlla dafa am ay nitam. Mm-hmm. ragal waat rek moo tax euh, du ma ko def mais xam gi ma xam Cheikh boole ci ak turam ku xam ni Cheikh Ahmed Tidiane lañ ko tuddee euh, ñu war a xam ni rek Cheikh dafa war a am mission bu muy dox moom yëg na ko xam na ko te dañ koy ñaanal nag loolu yàlla yeggalil ko ko yàlla mi ko jox parce que euh, yombul mais nga jékki-jékki comme ça euh, dévié wu di def euh, social bu mel nii ñu ne waat déet si si diine bi nga am si yenn taxawaay yi néegu yàlla yi nga jël ko en charge loolu euh, non seulement chance la waaye mission la mission la boo xam ne nag mu nangoo ko gàddu ko dañuy def lu dul gunge ko si du ko ñaanal yàlla nag yàlla gën a dëgëral taxawaay bi yàlla lafal ko si cat yàlla gën ko samp samp njabootam mais di ko ñaanal tamit di ñaanal waajuram parce que am na loo xam ne aussi sa waajur ya la donc euh, man daal damay mujjee di lu dul daal di ko ñaanal di ko ñaanal nag di ñaanal tamit soxnaam bi ko taxawu euh, Cheikh daal euh, macha allah rafet na sigil nañu nag ñun sigil nañu parce que si ñun la bokk moo tax dañuy def lu dul rek di rafet lu mais suñu contentement mënuñu ko mënuñu ko mesurer. dañuy def rek lu dul di gën sant suñu borom. et di ko wax nag ni euh, wax dëgg yàlla euh, li si kanam moo dàq. Aliou Ndiaye ñu gën ko miin ci wax Grand Dakar ak ñaari tali tabarakallahu ci ONU waaye nag ci wàllu gàttal rek ancien international yi tey jii ci doyen yi la bokk kon nag ñu koy laaj ban yëg-yëg la am bi mu gisee lii doomam ak rakkam def ko di Cheikh Ahmed Tidiane Seck. waaw di la sant di la gërëm ah, Cheikh moom wax si moom ay waxaat rek la mais suñu vice président El Hadj bu waxee suñu trésorier général Zamadou wax sama capitaine ah, Boy Bandi wax ah, xanaa dem ci yokk tuuti rek mais nag Cheikh Faye loo ci wax rek waxaat waaw baax na ñëpp xam nañu ko mu ngi def ñëpp xam nañu ko mais nag moom lu ma génneel boom si moom dafay nit ku tey nit ku yaru moo tax toujours yu mel ni booy ànd ak moom da nga koy wan confiance. wan ko sincérité àndandoo bi neex na Cheikh mi ñuy def ñëpp reconnaître ko nañu ko ko war a jàppale aussi. maa ngi jógee fii ba parcelle pour ñëw si événement bu mel nii parce que président Cheikh Seck comme ni ñu koy waxee mooy suñu président association anciens internationaux yi. man dama joué ak moom équipe nationale te depuis boobu ba léegi mu jouéwaat sama rakk nekk ak moom jaraaf. donc boobu ba léegi ñun dañuy gis ni bi mu yoree suñu association ba léegi lu baax rek lay def loo xam ni kenn du ko yëg. tey jii sax yàlla xam na ni lii daf ko mënul nëbb sax moo tax mu feeñe nii et puis di ko def aussi li mu ko def tey jii si biir diine gi defe naa ni loolu amul euh, amul benn ngërëm boo xamante ni ak euh, benn remerciement bu nit mun a def ba weesu def si biir diine ji diine ji moom defe naa ni lu ñu si def rek defe naa ni yàlla mu ngi koy gis te donc Cheikh moom defe naa ni Sénégal muy dakaar muy footballeur yi mu ñu nekkul si football bi defe naa ni chaque jour ñu koy gis muy def di ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam mu continuer chaque année mu def lu weesu li nga xamante ni tey jii def na ko si jumaa ji tey. mbokki internet DK gis ngeen ne noonu la ko Alioune Badara Sarr waxee noonu la ko Amadou Diop booy bandi waxee noonu la ko Amadou Ndiaye Samadou waxee ñoom ñëpp fa tabarakallahu benn kàddu lañ wax di ka yàlla li muy def ci jàkka yi mu ngi koy def ñoom ci ancien international yi waaye ñu ngi taxaw ak Alxaaji Dawda Gueye di président comité supporteru Jaraaf tey jii ñoom ñu ñëw ci turu nag sagal seen président Hadj Daouda ban yëg-yëg nga am. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yëpp képp ku fi taxaw rek maa ngi lay nuyu la jox sa wàccuwaay yëg-yëg bi ñu am mooy euh, nan président boo xam ni du président jaraaf rek mais président ñëpp la li muy def du jaraaf rek la koy defal mais adduna la koy defal si lu baax lañ ko xam si lay dox nekk si lu baax di defal nit ñi lu baax. donc lu baax koo gis wax lu baax rek lay def te lii moo ci raw nag xam nga lu toll ni jumaa nga def ko nii nit ñëpp ñëw mbooloo mi ñëw say mbokk ñëw say sëriñ ñëw taalibe yi ñëw ñëpp ñëw ñëpp rafetlu ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk suturaam yokk ko wér ak wérle tegal ko loxo si njaboot gi sàmmal ko yaayam sàmmal ko léppam ak soxnaam bàyyiwuñu kenn parce que Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane ñëpp la yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla bu ko cat jiitu fenn kontaan noonu ci moom te dañuy gën a kontaan si moom yal na ko yàlla taxawu yal na ko yàlla taxawu yal na ko yàlla vraiment kontaan noonu trop ci moom vraiment vraiment macha allah. jërëjëf kooku mooy Daouda Gueye président communauté supporter dak Jaraaf kon nag ñu dugg ci biir tabarakallahu jëlaat yeneen kilifa ngeen topp seen télévision DK TV people mbokki internet yëpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ñu ngi fii ci pencum Guy Mariama penc nga xam ne tey ñu ngi ubbi seen jumaa tombeek vendredi 2 septembre 2022 kon nag imam Maodo Mbaye gis ngeen ko léegi léegi la jiite julli ji ànd ko ak tabarakallah kilifa yi nga xam ne moom la xalif général Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mansour yabal ànd ak mbokk yëpp ànd ak tamit ak imam du ndakaaru de alin Moussa Samb ak mbokki waa penc mi yëpp kon ñu ngi ñaan ci kàttun yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem yàlla yàlla nangu julli ji